semi dafa kontaan bismillahi rahmaani rahiim leen mbayee leen ci biir Seex Anta bu leen nelaw yeen mbaale murit leen mbayee leen ci biir Seex bu leen nelaw li may nelaw nelaw du teema yeete li gëlëm gëlëm du teema woote amaana kuy nelaw nelaw lu ngir reer bu dee teete yandoor amaana kuy nelaw nelaw lu ngir waaye bu deewee te yandoor bu leen di fàtte yàlla ak dogal yi ak yaak sañ-sañ bi ak mbugal yi nan coobareem ca lay jëf laa gis mu xew mi ndee manul sañul lëf dogal baam day lëkkaloo ki xew-xew ngir kuñ gisul war naa la sew-sew te yàlla doo gis ba xam la muy def loo xaji xaji buur bi làqale yëf ku gën a xajay gënañ na toomiw ku joye pey baa gën a gis tiisam te yàlla kat xarit ba lay musibaal ngir dara jaal ko mbaate muy ku ñu baal li yàlla jox xarit ba ci maqaama te mënu ko jëf nattu lañ koy xayma la yàlla jox xarit ba ci maqaama te mënu ko jëf nattu lañ koy xayma te bala laa wóolu ba jox la bir yaa nga mu yaram baaw ca tànki bari ee lanablawaanakum li saabiriina aasibana suli kaasibiina moom la yaxoon yoneen yaag lab daali a xutbu yaag wali yaag law taali waxaala xutbu lawliyel mbakkiiw raliyelaaw anu el mekkiiw وبالحديث أبلا وبعده بنقبة ابتلاء فعيث ما استبر اتباع وعيث ما بعتل استباء أهل البلع ليس لهم من شان وليس إنسان لهم ديوان ديقول ما أخلع على دلن يونين أكسابيات ولياق جميع sooxale mee na gir yi amoon ci baawoon mbirum sëriñ gaawaan weef ci baatin seetal borom mu njiina aayo baa cheikh yaa ka dàq coon ak di wan kooba te yaaw ko sant di wax alam daa moo tax ba yàlla naa ko nii malab du seetal ma daan yel ma daan cib teen ñu boole koo ki gaynde yeew ko ci teen gaynde far di mar yaram fa mu ñu far ko jàngar faara bi yoore yaxyaana toom bi doo toom ci Sénégal noon yaa ka jàpp xar jamam jeeyaari gaal muy bëgg wax yàlla yebal jibriilu naka su ne ihdootu eh, doon mar soolu sooxale me maam sunu Ibrahima mbolaataam xaliilan ak aliima noone mi génne nañ ko muy bay fiara ba yàlla randiloo ko Ismaayila ñu del taal ko banu Namroos def ko ca biir yàlla sewal solom saa seetal ma yoneen biñ naa ya ngooba gumba na ayat di param tineeba gadaasi mooy rongooñ ganaa bi yusufa shankoom yeggi saxoo ayaasama sooxale nee nag yusufa ak bokkam yi delu xalam kasom beeg tuumaami dootoo ragal kudul ilee inaasi doo yox-yoxee di ngir pexem xanaasi na tub juli da yokkay maqaama mbaamu pi si piñaaw tiibi si qiyaama nattoo di kerkeraan lawliyaay ku weddi laaj ko xëy bi yaay mas nañu ko génne mu dem ba najaraan ñi di ko sànni doj te naan day jabaraan noon yaa génne makka bañ diine biis na beele dem madina fanaan na cim xunti fanaan cay doj ànd ak Ababakar lu nekk muy daj fañ nañ ko tabbal ko ci biirub sarwaan jox nañ ko tooke teew koo doy kiimaan keroog la yàlla wàcce saaru naasi ak fàllaxi mocce ko xëyu naasi bisub keroog la yàlla daanel kéefër yëkkati lislaam loolu doy tiitër duniyaa xanaa mooy suñul muuminiin waa kaafira ñi ñaar duñ mane dogal bu am nag yàllaa def te naa di ay diw soo gërëmul gërëm naa seetal ma saaba yi gannaaw yoneen bi waree fu ko ak xamul baatin ba am na ci biir yoo xam ne làmmiñ du ko am na ci biir yoo xam ne dees na ko misaal fa wa jabalin shaaku ama sajara waaye dinaa leen fii mosal fii dara ndax ku xamul yaaram mu dolli ko gu aar ku xam aram na seeti nooru labsaar gannaaw rasulullah ak sadeexu lañ rendi dellu jam Faaruux rey nañ ko tuuma nañ ko jàpp Marwaan masoo kibiree déglu leene yéen gaawaan daw nañ kër ga arbayiina yawman wataf patan lii na fecci war ma kenn musta nañ ree Abdullaahi dañ koo sarab rek bopp bi war na laay yamal jamal tooñ nañ bëtum day joor ba bis ba yore ñu toj bëtëb Muhammadul Ababakar Sadeex rey ma jaar na waa ju nekk wat ko sànni ci santaare taxam jabar ko boole ko imaaru aley dara kadan jàmbaar ja seynu wal asan yaakaari baña mi rey nañ ko koofa ñi weddi yàlla gaay rokk foofa fa mi julee fajal ibnul maljam boccub gobar bett ko daldi koy jam seetal wa seynu yow ma asoora lañ kara cereey karbala noon yaa ngeer bopp bi gannaaw bi deena lammi yoona seele mun leziina seetal asan noonu ni dañ ko tooke mudallibaatu soxna saaka sooke ñoo tooge saadiq dialu tooke baaxir ñoo tooge sayil abidine tayir satu rasulullahi musal kaasimi ganee bu am gor ci doomi aasim taal nañu neeg ba ca kaam ca Bagdaad teñ nañ jaat baar men nagraat yangoo ba doomi waajina daawooda kookaare nattu asal moo yaada fukki at ak juróom la am ci aw bu leereere te musta génn Cheikh Anas baay Limaamu Maaliki du am xal ngeen mi tax nu seeliki te ñañ ca ci kasoom la faatoo mbar ma ko jullee wu du foo faatu xanaa xamoo alaaji soob yooyu mbar door nañ waxtu takku saan junni yar mu taaye di gaayi far ko rendi ke dag ya taamoo nu ngendi kanaa xamoo jaxfara doomi Yahya te ñu nga far ko rendi jengi Yahya na de mu tawakkil baayam maseebu koo gis rey ko doni gaayam kenn mu sayin a nge ak Muntaqa ak ak Naasiri de ngeete daa ceri mboolem pontu togg be deex sotti ko mboolem gët ya abbas borom daara jawoon ca mesere te nañ ca at fa besere borom jumaa wan ci fakkaani te nañ ko fab karen di tëj bunyaani xanaa xamoo Mansoor sey bu diine moom la ñu mu dem ba siini siyaatal ma kañ dàqe cereeri soriya mu jóge mesray daw balas kenn deriya jot tabar ko jàpp tëj ko foofa ci a waxtu moo defoon xalifa ndiyam xulafaa yi dañu rasool ñoom la ñu def ni kenn war ta woolu soo xalamee sax saari yoog saxreeni kalaame nañ saxreeni soo xalamee worom yeen ti ngeen yaaw deesu ku daj lam dajoon ca bari yow ahmadu en dañu maraw ca ngeen yaaw ñeenti jéng lañ defoon ca yeel yow daanañ ko caw téeméeri yar suba te mu sawet yàlla mu ta mooy yoon wa yaxtimul quraan kulla yawmi maa qiyaami mu diimu sawmi ci la sax ba faatu wóor na ci la sax ba mustasim xëy faatu buur ba ka teg taxul mu yaatu ba mustasim faatu ñu xëy fal waasex mu yeesalaat ka soom baa doore far sax cuwaaxala nee na kasot abo aniifa amma abo jafar de bépp kon doo xalaatal seydil muxtaaro téeméer yar li daañi kaleere téeméer ak ñi beelam du li daa def naafila doole wér du wa yaxtimul quraan kulla yawmi maa qiyaami mu di mu sawmi cee sax na Bagdaad في يوم الجمعة لورش الجاب شوخر مينك في الإمام مالكي ngir wax yaaroo ne Rachid el Maliki kon nga ndax Malik amul karaama te xam ne day ragal ëllëg malaama seetal mbiru maamina ak maamoona te xam ne ñoo dogo geñ ak aaroona da ko yoroon ba xam ne gaa yi dee ba mu rey ko daldi xëy deewub xalifa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 ñoo del roy nag almaami abdou bokar ahmadou sayqi jàpp abdoul qadir jàpp rakam almaami ali bokar yóbbu gabang doom ji ñoon ka póotar ñoo génne albureeg samba ceelaaw fukra seen penku ne ma waawaaw wuri kajeer fi nekkoon ci baawan ñoo leen toxal taxawal ti waawan raatale doomi buuri fi saalum raatale siin gànnaar taxaw ne maalum seri si wan diggante waaloog njaambur ñu jàppale nag kenn defatul ab jaambur ay na sëriñ ma kaa baraama xaali na caste moo rawoon kuy xaali cheikh maxtaar mi mbee mi sañtoon ko kii ahmadu aminata ñoo nan jéema daddu adduna ak gi te xam ne waaju aayewal ayam gi dul yaay tiisu gaa yi ci yàlla te àjjana yéefari weddi yàlla ku weddi feet ahmadul mbakkiyu bam laata doon muhammadul mbakkiyu noonu yeegee neegi mbakke bëri sandarma yaa ngi ko naan ndar jaari mu jaari ndar muy bëgg a mel nag daaroom ñu daal di mu dem Dakar sooxale ne yaari guddi ndakaaram ba dégg wax ji mbar ma nga waaru isa zakartu salika almabita wa salika alamira wa sabota tarat ila jadibi larmai nafsi walakin saba anil mai noon yaa gene foofe yóbbu galwaa nga sax juróom yaar atam ca balwaa dem na kunaakiri ba dem maa yomba te musta yox yoxi bëtal Tuuba kanoog fetal ak karawaas ak jeesi lu tee sëriñ Tuuba nag di ci neesi mu ñëw ñu fab quartier yi boole mbaaxaan ci kewi tuuma lépp dooni caaxaan ngal doore Bamba du morom kaccoor gaaxi tukkal kenn du ko perngal yan ba ñeen ak lab daal ya te attu nuñ moo ko raw gaaya dëngandii tawatul balaaya sootul axwaani la am ci laaya sëriñ si naaqi la kaamil bër yëpp suq la kaabal man sakke bi saali kabali jaribu wa man jaribu abi takkaru bi xam yara kub dërëm akub dinaar ñooyam fa daam du maye deynaaru bamba kumal mooy danay rasoolu moo mooy kenn ku ci mbooloo waxilaru burujiin ka alfin هو رب أرض قيمة كوف محمد فرد يفوق تسنيا وباخ جمن والحداية مقنيا sëriñ bi cam soo ca xiyaas mu yees ko te moom place boo ko wutal mu yees ko sëriñ bi alëf ci desam la ñeddal seexam ta moo tax nooni far korandal kundelu sayir wala ñeddi baatin sayir baraama tax am baatin kuy rabba dee xiiba kamar sax mbaamuy nangoo guddee mbaa rafetal luñ taamu jaara maam seexante yaa gëm bamba yaa taaru yaa tabe te gëm yoneen bi yaa jëkk a fab sa mbir ci seenu askan jebal sëriñ Tuuba nuroowula ak gëm yàlla gëm yoneen bi gëm sëriñ bi moo tax gëm dogal bi atten yan ba gëmu dogal te aw niwel fugraasi nii la sëriñ bi def baraw faraaj seen bu bi gis na mboolem Sénégal te tabatoo kalaame woo nihma rijaal fa rajulu rajulu man yasbiru fii baliyatin wa ni amin aishatu fii sabrun jamil mbakke yaa wakiilu yaa woo rabbul arsi maa la woolu natiirey boole bari jaloore ànd ak gudub tànk lëmba di luure yaa fi demoon ku naa kireeki kongo fekki Sëriñ Tuubaa nag ma gongo yaa bari ay ndam ca bari jaloore yaa dem ba romb géej gi romb toore yaa jiw me dem Minan ak Arafa yaa dem Saba ak Marwata ak Masdalifa saare fi Madina Munawwara mu ne fu laa gàkkal araam nga sawara Ahmadu Njaay mayo Ibrahima yaa na xamal maqaama Ibrahima rammu nga leen tàggoon nañu ak sunu ba siyaa nañ tey de siyaare Tuuba ajaale akbar wa matala